ci kaddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Media ni ñu ko junjee ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi dooree xibaaru digg ba ca géek barab ba ñuy gësee or ca diwaanu Kédougou am na fa barab boo xam ne mooy euh, massa massa li ñu seetlu moo di euh, yëf ya dafa màbbu tey jii. ma nga xewee ci commune bu euh, bu nekk ca département bu Saraya la mu jur moo di benn doomu aadama bu faatu nemmeeku nañ ko fa nemmeeku nañ ñoo xamante ne ji rëcc nañu ca yëf ya daw ba mu di benn site hors péage boo xam ne tegewul ci yoon maanaam ci clandestin lay doxee ci ni ñu ko waxee euh, loolee nag euh, taxoon gendarme ya daal di fay ci ngir daal am noon kon ay opération ci Kédougou ngir site hors yi nga xam ne ña nga fa te tegewul ci yoon ñu daal leen fay jëlee Ibrahima jabaxate ci ay leeral. benn nit bu faatu ak ñi rëcc te gisaguñu leen bilan bi ni mel moo moo am ci suuf su màbb fale ci juraabu masa masa te mu bokk ci commune bu Bembou fële ci département bu Saraya benn burkinabé bu am ñaari fukki at ak juróom moo ñàkk bakkanam ci accident boobu bi ñu ko yëgee élément gendarmerie yi ñu nekk fële ci brigade bu Saraya jot nañ fa teewu ñi génnee néew bi ci biir pax yooyu li ñu mën a jàpp rek ci jamono ji moo di ne bëri na ay suuf si màbb ci juraay clandestin yi nekk ci biir département bu Saraya te li si bëri orpailleurs yi ñooy nëbbatu force de sécurité yi sàcc di liggéey ci barab yooyu loolu moo waral accident yi bëri ci juraay yooyu compagnie gendarmerie bu Kédougou am na taxawaay bu dëgër pour xeex activité dangereuse bi ni mel pour gën a mën a aar askan bi nga xam ne gisuñu dara lu dul wutum urus bu méttee métti Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. cour répression enrichissement illicite di CREI yi ñu waxtaanee ko. lu aju ci dossier bi ñaar fukki personnalité ak juróom yi ñu doon wax ana fan la yëf ya euh, toll ñu ngi ko doon jibal ci jamono ji nga xamante ne ji euh, kii di euh, njiit réew mi Macky sàll kon falu na ci boppu réewum Sénégal loolee it def nañ ci ab gëstu gëstu ba wane ne na am na ci dossier yoo xamante ne ji buukule nañu ko bopp Ousmane Ngom ministre ba woon ca la bokk am na it yeneen juróom-ñetti dossier yoo xam ne ña nga ca enquête ba Ajaratu Binte Diallo 2016 ba tey jii CREI daanaka liggéeyatul dara du caagante ne nag magistrat ya fa ne amuñu lu ñu war a liggéey du loolu de ci xibaar yu ñu jot mooy ne exécutif bi ci boppam te buñ ne exécutif Macky Sall ak ministre de justice am ñoo tax ñoom ñoo jox ordre cour de repression enrichissement illicite ñu arrêté lépp ci dossier vingt cinq personnalités yu nu ne PDS la ñu bokk te ñu jiiñoon leen ne dañoo am alal ci anam bu lewut ñetti dossier rek ci parti li lañ ci vidéo woon muy bu Karim Wade di doom ci Abdoulaye Wade ñu tëj ko juróom benn atu kaso yu mu tëdd mu jigi ñu may ko grâce beneen bi mooy Aïda Diong moom tej nañ ko fukki weer ak juróom-ñett détention préventive maanaam laataa ñu koy atte procureur spécial sëgg ci dossier am gis ne lii daal non-lieu rek la mun a doon. beneen bi mooy mbiru Tahibou Ndiaye nekkoon directeur général bu cadastre moom itam yóbbu nañ ko kaso daal di koy atté tëj ko juróomi at waaye moom juróom-benni weer rek la tëdd ñu génn ko bàyyi ko mu ñibbi këram. waa kon yeneen dossier yi fan lañ toll loolu nag la ñu bëggoon a xam moo tax nag ñu def ci enquête. enquête bi nag luñ ci jëlee ñetti dossier bokk na ca bu garde corps bu président Abdoulaye Wade Lamine Faye ca Akitam, ak itam bu ministre des affaires étrangères ca maître Madické bu ministre de l'économie et des finances ca booba Abdoulaye Diop ñi ngi ci loxey gendarmerie wala dig ak itam ki fi nekkoon ministre de l'habitat Omar Sarr naka noonu Samuel Sarr ak Farba Senghor dig nag ak brigade de recherche ñoom la ñu sant ñu def enquête bi bàyyi nañu lépp tege ko nële ci li ñu fore itam ci woyu béy ne seeni supérieur ñoo leen ko sant waaye laata ñu leen koy sant ñoom waa dig wala brigade de recherche pare nañu ñetti dossier yoo xamante ni enquête ba jeex na ba jébbal nañ ko procureur spécial ci ñetti dossier yooyu le gis nañ ci turu maître Ousmane Ngom nekkoon ci ministre de l'intérieur mais ñetti dossier yooyu itam mu ngi ci loxoy procureur spécial waaye moom jëlu si benn dogal a du Diagne mooy procureur spécial moom rek moo mën a jël réquisitoire ne lii kat amul benn preuve fee laa koy tegee muy non-lieu wala boog dinaa ko jébbal magistrat yi ñu àtte ko moom procureur spécial jéem nañu jokkoo ak moom ba sonn waaye jotuñu ko. commission d'instruction de la CRI qui parti mom bouclé dossier Abdoulaye Baldé ak Soxnam ba procureur spécial mi ci mais procureur spécial ba légui ci xibaar yi ñu jot itam Abdoulaye Baldé ak enquête bi batay dañu gis né 25 personnalités été. le personnalités yi nga PDS la bokkon wayé ci ay hauts fonctionnaires de l'État dossier yépp nak nelaw ci tiroiru kër yi ba xaar nag ba instruction rek jógeeti ci président Macky Sall ak ministre am de la justice. bés ni tey ci atum 2006 fanweeri fan ceeru décembre la woon ca la ñu faatoon ki nga xam ne moo di Oumar Lamine Badji def na fukki ak ñeent Oumar Lamine Badji ne woon njiital conseil régional bu Ziguinchor ca këram ci Sindia fa ñu ko fekk boom ko fukki ak ñeent ak njabootam di sàkku ba léegi yoon def ca liggéeyam bëgg nañu it daal nu ñu mën def ba jubóole tig-tigal boobee ngir fitna ja ñuy dund doon lu jeex tàkk des di déglu kàddu yi leeral yu bàyyeekoo ci Seydou Badji mooy coordonnateur bu comité organisation anniversaire euh, bu euh, Omar Lamine Badji ci téléphone El Hadj Ndiogou 2015 justice def na effort ba mu déglu ñi nga xam ne ñoom la jàpp denc leen ci prison bu ñu leen dégluwee juróomi nit ñoom lañu ñu tëj pour euh, ñaari fukki at ñaar.

bi ñu mbir mi amee jugement bi bu amee Ziguinchor le 20 janvier 2015 mille quinze dañu gis ne ñi doon jugé suñu ay mbokk lañu ñu bëri suñu ay mbokk lañu donc dañu gis ne que situation boobu mënul continuer parce que mënuñu suba tem ñu nekk ak ñoom dañu ne loolu moo tax ñu ne il faut mu am lu ñuy wax réconciliation

suñu nekkaay ak ñoom mu gën a rafet ñu leeral mbir mi vice président bu ONG Jamra di Mamata Gueye xamle na ne ci diiru benn at récépissé yi ñuy jox kuréel yi ëmb ay góor jigéen ak i lesbienne fii ci réew mi jóge na ci juróom euh, fukk ak juróom-benn dem ba yegg ci fanweer ak ñaar maanaam dafa ñaxte ci yaat mi moom vice président bu ONG Jamra Euh, di sàkku ci xeeti association yi nga xamante ne ji kon euh, jaruta euh, maanaam des koo war a tas loole la bëgg ndax gis na ne daal dëppawul ak suñu aad dëppawul it ak suñu cosaan Mama Tax Guèye yooyu la kàddu mi ngi ko yëkkati tey jii ci rajo Futur Média moo ne woon ganu RFM matin. ñun ba ñu defee déclaration 2019 ne état mënul tëgg article 319 ba noppi di rëbb mbirum borom ñaari tur yi ndax ngor bu ko diine bu ko. ce même état jaar ci souf di len jox ay lijaasa parce que les moy lijaasa rek moy am nga droit à une existence légale xam nga dañ ko wéddi won alors euh, waye bama togué ak Aliou Ndiaye le 13 novembre 2019 jox naa ko ay échantillon ba paré jox ko ay preuve wan ko né fuk ak juróom Ben. lañu waye xolal rek 13 novembre 2019 ñu ngi nii ñëw 2020 ñu joggé 16 dem fanwer ak ñaar kon amna lu xew. moo nak ñi ngi may nopp le directeur de liberté publique di Ahmed Fadel Kane mom mo wax ni euh, n'est-ce pas état banque ci enquête ñun ñi nga xaar bu enquête bi joxe ba xam fu muy mujj parce que amuñu ci droit c'est une violation du code des obligations civiles et commerciales d'après yi tamit ni ma déggee Aly Ngouille Ndiaye wax ndax ñoom bu ñuy ñëw def leur déclaration d'objet social xam nga bu dee syndicat da ngay c'est pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs bu dee parti politique ngay créer bëgg récépissé da ngay naan c'est pour contribuer à la démocratie et à la conquête démocratique du pouvoir waaye ñoom dañu def des déclarations d'objets sociaux qui n'ont rien à voir avec leur activité sur le terrain foofu la ñu naxee état bi ba jot seen récépissé ba ñu wanee état bi ginnaaw rek dem di leneen lu wuuteeg la ñu waxanteeg solution bi moom y' a mille solutions na leen état bi tas parce que lii ñu leen di may ñuy ami récépissé ami sañ-sañu daje sañ-sañu créer lu mel ni ay syndicat kii daayira wax naa ko Aliou Nguy jox naa ko ay preuve ñu ngi ciy profiter di truander les ambassades occidentales di fa am ay financement Justin Trudeau bi mu fi ñëwee góor jigéen yi fort de nax nañ ko ba décroché millions naka ñëpp a xam du dëgg góor jigéen ñi ils sont pas plus méritants que. Mame Matar Gueye di vice-président pour ONG Jamra Radio Futur Média xibaaru digg bëccëg yi 13h13. pour man RFM mooy Radio bi gën a askan wi. RFM Radio bi jaamu seen soxla. UNESCO am yéene bëgg-bëgg ñu dugal ci njangum gone yi mbiri sey jàngal leen nu ñuy sëy ak xeet yooyu ak la mu lolé ñu dégg démb mbitt jëwriñ gi am éducation nationale di Mamadou Talla démb yëkëti kaddu de xam le ne seen euh, suñum réew di Sénégal nasagul loolu te it nasarugu ko waaye am na xibaar yo xamante ji da fay weddi wax jojé ministre éducation nationale wax document officiel bi nga xamante ji kon jàngé nañ cay xibaar lamu mu moy mooy ñoo ngi woon ci pexé ngir nas lu ni mel Alaaji Georges de ci Diop li leer mooy lettre d' invitation yu atelier de partage Bobé ak terme de référence ya weddi nañ ministre de l'Éducation nationale ci li mu wax donte sax li taxoon a jóg boobee atelier moo di restituer revue bi ak càmbar lépp lu jëm ci nu ñuy dugalee éducation à la santé de la reproduction ci programme scolaire yi foofu sax la mbir ma ndax Lintia Khatim, Modi, Bobé de revue de tënku ci fonds de solidarité pour les projets innovants kon Kilolaire, ci lu leer yemale Gorak ak santé sexuelle et reproductive yu gone yi Djangul, ak ñu Sénégal ak Togo bu Mamadou Talla waxee nag fa ñu newoon la ñu ne ba léegi soppiwuñ UNESCO Defedef def ab étude documentaire ngir Holat, tolluwaayu éducation à la santé de la reproduction qui Curriculaire ci élémentaire ak ci secondaire naka noonu itam ci référentiel yu jëm ci walu ni ñuy former jàngalekat yi ci ñaari dëkk ya ak itam xol lan le yok lan lañuy wañ ci walu wa ci formation wu enseignants yi ci politique yi itam ak yenn stratégie ak ci téré yi naka ci ambar système éducatif yoyu. lañ doon xaar nak ci bobé atelier ay orientation la jëm ci ni ñuy taxawalé ab module de formation jéglél ko kat yi ci santé de la reproduction méthode programme atelier bobé sax ñu ne dañuy ci diglé yi ngir taxawal bobe module ngir taxawal bobe module li mota a nak modi buñu yéré document ya ñi organiser nenañ buñu bu ci liñu tiambar lañuy formuler ay digle ngir taxawal bobe module de formation jëm ci éducation à la santé de la reproduction ak continue ñu violence de genre ci milieu scolaire yi waaye lépp nak nag lay tënku ci suñu cosaan ak ada coow lolé modi di jangal goné yi mbiri sey ak limu lambo ci l'école yi. G7 di kuréel gu jaboote syndicat yi yëpp doole fii ci réew mi syndicat jàngalekat yi nee nañu du ca dal loole moo tax jamono ji ñoo ngi amal am ndaje ci seen biir ndaje ma mooy xool yan yoon lañuy teg ngir gàntal pexey ñi bëgg a dugal xeetu njàng moom ci biir lekkool yi woppi coronavirus yi ak tolluwaay gi tey jii dégg nañu juróom-ñaari doomi aadama yu ñàkk seen bakkan mu di loolu gulet ñu koy dégg juróom-ñaar nit yu faatu ci 24 heures ci mbas mi bi mbas mi dooree ci réew mi ak léegi fàttali ne limub ñi ñàkk seen bakkan ci coronavirus bi bi mu duggee ci Sénégal ak léegi mu ngi toll ci ñeenti téeméer ak ñaari doomi aadama nafisatu Sylla juróom-ñaari muy lim bi nga xamante ñu ngi koy doog enregistrer fi ci Sénégal bi pandémie bi tàmbalee ba léegi ni si létalité bi nag ci manam témer bo jël am lo ci xayma tay jilé mi ngi tollu ci 2,12 ñu sétlu ci ab yokuté liko dalé ay bés ñu génn ba léegi ni si buñ yaatal xayma bi muy ñaar fukki nit yu faatu ngir junni malade bo jël liko dalé corona bu ñëk bi ñu enregistré ci mars 2020 Sénégal ba fi ñu tollu mi ngi ci 18 945 kaawu Covid 19 ñi faatu. faatu toll ci 402 muy ñeenti téeméer ak ñaar ñu gis ni nag li mu ñiy faatu ci coronavirus mi ngi gën di yokku rawatina fan yi ñu weesu li mu tey bi nag doon bi njëkk gannaaw bi ñu ko nemmeeku mu yemoon ci juróom benn nit yu faatu ñu am ko ñaari yoon nag ci vague bu njëkk bi ak ci ñaareelu vague bi ndax ci vague bu njëkk bi fukki fan ak juróom ci weeru juin la Sénégal njëkk am ci benn bés juróom benn nit yu faatu te jamono joojee sax ñi ngi tolloon ci juróom ñaar fukki nit yu ñàkk seen bakkan ngir coronavirus ñi ko amee woon nag tolloon ci juróomi ju nekk ñeenti téeméer lu tekk ci ay kaaw coronavirus ba ay bési la ñuy weesu di le 22 décembre Sénégal itamit ci lu vague bi daal di juróom benn nit yu faatu ci jàngoroy Covid 19 li mu ñu faatu woon nag tolloon itamit ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti nit yu faatu ci juróom benn weer rek gis nañu ni li mu ñu faatu ëpp na ñetti téeméer te ci jamono joojee nag lim bi tamit ñi nga xamante ne ñoo amee coronavirus mi ngi tolloon ci dix huit mille quarante trois cas ci ay bés rek ñu weesu ñaar fukki nit ak ñett faatu nañu ci jàngoroy coronavirus waaye li ko dalee ndox ndoxteelu semaine bi le gis nañu ni ci ñetti fan fukki nit ak ñeent faatu nañu ci coronavirus. këru liggéeyukaay gii di groupe Excaf Télécom liggéeykat ya fa nekk yaakaar dundaat na ci seen biir la indi yaakaar ja moo di kilifay kër ga ñoo jël dogal ne. dina dinañu fay lu mu néew néew ñaari weeri salaire ñeel liggéeykat ya loole suba ci la ñu koy tàmbali mu di lool liggéeykat yi rafetlu nañu ko waaye taxul nag syndicat gi jaboote ñi nga xam ne ñooy liggéey foofe ne dinañu toqi baañu euh, dakkal xeex bi danañu ci dem ba jeex ngir liñ leen amel yëpp ñu fay leen ko Mamadou Lamine Ndiaye kenn la ci kilifay syndicat ga foofe ca groupe Excaf Télécom ñu déglu ko ci micro Pape Balla Gueye

Euh, jël nañu weeru décembre yi mais dañoo gis ne ñoom à plupart du temps engagement yi ñuy jël en fait c'est des paroles seulement mais du dem ci concrétisation bi da ngay daw da ngay daw mais doo jot lu ñu tënk tey euh, mooy maanaam dañ leen a déglu nee nañ suba dinañ fay deux mois ce qu'ils ont dit non c'est une énième promesse yegg nañ koo wax mais nag man balaa maa gëm ma gis gisaguma dara damay xaar ba suba

peut-être que cas benn cas la mais booy xoolee law la ci fekk yëpp nañu waxante dëgg lan la mooy contrat yu baaxul beneen bi mooy maanaam cotisation IPRES ak ñoom seen ak yeneen ak yeneen waaye tamit contrat yi nga xamante ni da lay sécuriser parce que nit tam mënoo xëy di liggéey ci bër nga mel ni kenn xamul amoo kayit yi nga xamante ne day firnde lii mooy lay liggéey ak waa ji il faut yooyu am am nañ ko am nag mais pas tout le monde. askan wi suba alxames fanweeri fan ak benn ci weeru décembre njiitu réew mi Macky Sall ni mu ko baaxoo ci njeextal at mu nekk yëkkati kàddu jagleel ko askanu Sénégal suba it fas na ko yéene def ci yooyu la jamono waa kaw gi ñoom it di ca xaar lu bare bari

union du monde rural bëgg mu dagg buumu jàmm bi nga xamante ni moo leen tënk. ci sa discours à la nation bi ngay adressé le 31 décembre. dañu lay wax ne la. le monde rural veut son autonomie. askanu kaw gi. dafa soxla demal boppam. laajul kenn ku jóge feneen ñëw di leen saytuul seen koom-koom. askanu kaw gi. dañu soxla seen autonomie parce que lu ñu leen mën a jox ñu gérer ko. mën nañu gérer lu ne mën nañu gérer jaayam ndox lu ndaw a ndaw ndaw la. ci li nga xamante ni moom la ñuy def. bu ñu fexee ba féexal leen nag ñoom dinañ mën a yore seen bopp ndax am nañu kàngam yu nekk ci dëkk yi yoo xam ne ni mën nañoo doxal lépp lu jëm ci développement. avant indépendance yi la état du Sénégal tabax ay école ci mim réew. boobaak léegi ëpp na juróom-benn fukki at. juróom-benn fukki at waa kaw gi yóbbu seeni i doom école ñu jàngi ñu demoon jàngi bu fekkente ni état juróom-benn fukki at ba léegi dafa wax ne ñu demoon jàngi am ndox sax mënuñu ko saytu. waaye waa xay si école yi kon ak université yi bu ñu yeboo ñu tëj ko. union du monde rural lëkkale ay doomi Cees ak njaareem bëgg-bëgg benn rek lañ am fexe ba lépp luy àq ak yelleefu doomu aadama ci dëkki àll yi ñu sàmm ko ba kenn du ci fenn leen joxbel RFM Babacar Diouf. RFM bitim réew. yegg nañu mbokk yi ak yéen ci xibaari biti réew dalal Anna Rochalita Lopez fay maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax a baax euh, Mohamed Ndiaye. dañuy dooree xibaari biti réew yi ak jàppante yi nga xamante ne ji am na bay bakkan sax faatu ci yëf yi ma nga amee fële ca dëkk bi nu mu ñoom rek. ñooma. à Nioma. Mhm. ah d' accord Guinée Bissau la nekk. te Guinée Bissau mu ngi euh, tollu ci euh, ñaar fukk juróomi kilomètre capitale ba di euh, Bissau kon bilan bi nag metti na ndax juróom-benn nit ñoom ñoo ci faatu am ñeneen ñu ci jëlee ay gaañu gaañu problème mu suuf daal moom moo dox diggante askan wi foofee ca Nioma fu mu toll nag police lañ fa daal di yebal ngir mu daal di surveiller ngir fitna bañ fa yëkkatiwaat dañuy dem bissaw kon fekki fa wa Mankali ci ñu qui nous dafa am ño xamanteni ñu ngi ci dekk bu ñu ne yungum ñeneen ñi ci sum waye xibar bobu dafa waneni ni ci am ay gañu xamul la ñu ndax dañoo doon jël ay fetal di fetalante bataillon bu force armée la ñu fofu pour mun renforcer kaaraangeel qui ci site bobu wa situation Bobu dafa nekkon xamanteni police bu ordre public mënu contrôlé. te tamit ci la ñu mobiliser garde nationale pour ñu mun a wàññ mer bi benn xibaar boo xamante ne moom la RFM contacté xibaar militaire ci Kouméré moom dafa confirmé ni dañoo ni benn renfort pour ndax jàmm na dellu si ñaar dëkk yooyu maanaam Lungum ak Sum RFM dafa yëg ni ñi ministre bu administration territoriale Fernando Gomes moom dafa dem ci place boobu pour mun a xam li fa ci niveau bu ministère de l'intérieur RFM dafa tenté waaye mënul am réaction bu entité bo xamanteni mo chargé ci karange yu guiné di saw dafa am ay nit ñu bari, bari ci ñaar dekk yoyu xamante ño nekkon ci xex bi ñom la ñu tëj ci prison bu deuxième escadron bu police d'intervention rapide fi ci Bissau ñu war nañ RFM dañuy des ba Mohamed foofee Guinée-Bissau ndax police judiciaire moom mooy Kouti, ci euh, ministère public bi mu daal di convoqué ki nga xamante ne premier ministre ba euh, Nuno Gomes Nabiam waaye itam euh, ministre de l'intérieur ba ñoom ñaar daal dañu njortu ne seen loxo setul ci exploitation forestière biir rawatina ci mbirum coupure de bois bi dagg bant bi. Eh, ci kon ñu dem fële ci euh, Côte d'Ivoire Fofé mom dialogue politique national ba ñu fa doon jéem yëf yi ci féewaloo la euh ci féewaloo ndax euh, parti yu mag yi nekk ci euh, kuje gi nga xamante ne dañoo ci bir ap coalition dañoo lank ne duñu signé bataxal bi nga xamante ne moy mooy. jeexal liggéey boobule muy wa FPI ak wa PDCI code euh, Mayet man la wala yo yow la ay ca waxtaanee jàngoroy coronavirus ji ak. Euh, Euh, beneen xeet boo xamante ne ji nee na ñu dugg na ca Canada réewum Canada. ñu koy wax euh, variante bu bees ci euh, coronavirus bi ci fan yu mujj yi rek lim nañ fa lu tolloog juróom-benn cas yu bees ci variante boobule diwaanu Québec nag nga xamante ne jot na tàmbali na vaccination bi foofee léegi nag nee na day gën a dëgëral li nga xamante ne moo di mesure restrictive yi ndax vacances yi nga xamante ne ñoom ñoo war a dellusiwaat ci réew ma. ñu jéxalé ci Chine ak laboratoire bi di euh, Sinopharm mom dal dina xamlé euh, niki ki euh, tey vaccin bi nga xamante ne def na ci walu ngir xex coronavirus bi néna na efficace na ci 79 Mohamed waye dafa gëna a nak nag yi nga xamante mom moom la américain yi waxone di Pfizer ak Moderna. Mm-hmm. nga ne coupe de bois nuñ koy waxé ci wolof. dagum bant. dimbale ñu ba sa wolof yi bu ñu topp 2021 rek RFM Sport maa ngi gis Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ñëw di la xeetali Cheikh nga ne loo wax gor ah moo wër gor garabi. yi man daal ànd daf maa jaaxal daal dimbale ñu rek Lopez ba sa wolof yi daal saa yi dafa saa yi dafa progrès ci wala ba ñu ne ya sotti ana jékki-jékki daf jombe peccum dof ba la koy mu summeeku ma nga noonu nag loolu jëmul kër <laughs> ayca Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ñu euh, ma bala nga doxal waaw ma doxal rek comme tey ah, ah, yàlla ba ci kanam ak kanam jërëjëf Diagne waaw kay <laughs> mu barkeel amiin amiin mi ngi noonu ayca tàggat yaram wàllu football koy tàmbali dañ koy daal nga xam te ni week bi incha allah lañ ko fas yéene euh, door championnat bu football gannaaw buñ toogee ab diir gu yàgg nga xam te ni yëngawuñu ci ndax euh, mbas mi di coronavirus yëfi nag danañ ko daal di door niki ki weekend bi incha ki nga xamante nag moo di président euh, lii di ligue sénégalaise bu football professionnel di CRC tey ji suba gi mu ngi doon amal jënoo ak way taskatu xibaar yi ngir dellu ci mesures yi nga xamante ne jël nañ ko ñu daal di ko déglu ci micro Papa Mbaye Diaw. matuwaay yi nga xam ne moom la ñu euh, jël pour mën a commencer waat championnat Sénégal li ci gën a fës fédération sénégalaise de football plutôt pour que nous mën euh, commencer commencé euh, mois de janvier 2021 ci ñaarelu fan bi samedi ñaarelu fan bi ñu mëna a commencé waat li nga xamné moy championnat du Sénégal Ligue 1 ak Ligue 2 waye commencé waat aussi li nga xamné moy championnat amateur national national 1 loolu nak dañ koy def ci euh, euh ay anam yo xamné euh, yu leer la manam euh, li naan li tubaab naan huis clos manam du am spectateur du am public du am supporter ñi nga xamné ñoy football rek ñoy nekk ci biir stade loolu yi ñu tëral ci ay charte yo xamné ay charte yu leer la comité exécutif fédération sénégalaise de football ci réunion moko moko Terre. moko moo muy équipe bu délégation fanwéri nit la presse bi match bu nek fukki nit la ak juróom boko euh, euh, nit match bu kokudi di Sayer Seck di njiitu ligue sénégalaise bu football professionnel Mbaye Leye moom nag doomu Sénégal di ancien international mom euh, nek ci Belgique don fa évoluer ci club bi nga xamante ni moo Standard bu Liège mom nak tey yi suba gi dal nañ ko tab mu daal di doon entraîneur bu bees bu équipe bobulé di Standard de Liège ci diirub juróom-benn weer dafa daal di wutu moom Mbaye Leye ki nga xamante ni moo Philippe Montagny di domou France ndax insuffisance de résultat gannaaw lolé nak ki di Sadio Demba mi nga xamanteni ni domou Sénégal bu njëkk tagat fofu équipe bu euh, première division ci championnat bu Belgique euh, lat nak mu wutali Arabie euh, Saoudite ci atum 2018 dal fi dirigé benen équipe mom Sadio Demba yëkkati na ay kaddu mom nga xam don ancien international don itam tu ci équipe Jeanne d'Arc bu Dakar ci année 80 ñu déglu ko ci micro Babacar Fall. standard dafa nekk ci ay jafé jafé ba limogé cet entraîneur le comité de nous décider que nous ñuy jël ko il est issu de la maison donc euh, Mbaye m'a présenté le meilleur profil parce que jouer na standard Donc na fa entraîneur adjoint celui qui fut actuellement euh, le vice-président du club Michel Prodhomme a été coach au standard et Mbaye était son adjoint donc je crois que club but, c'est une vision par rapport à seen i ay réalité def choix bu baax a baax maintenant euh, li ñuy wax mooy euh, ñaanal ko souhaiter ko vraiment beaucoup de succès parce que euh, yombul surtout que bon c'est la première fois que muy war a diriger un club club bu euh, standard euh, yombul parce que euh, depuis club bo xamné ne dafa tout le temps jouer ay rôle yu mag ci championnat Belgique bay lay ko xam ak discipline bi mu amé ak engagement bi détermination bi mu am comme niñ koy waxee comme mom bëgg na affaire bi war na ko mëna def inshallah rabbi dañ koy ñaanal vraiment mu am beaucoup beaucoup de succès kooku di eh, Sadio eh, Demba jàppale ni jamono gi ñu wax yéen nag am na ay club yu bëri nekk fii nii ci Afrique eh, di waxtaan ak moom ngir fexe kon bokk na mu leen tàggate ñu daal waxtaanee wàllu football ba tey lay bile yoon ci championnat bu Espagne jàppale nag tey ji ci ngoon danañ ko daal di kon bokk yeggali seen i jongante ñaari équipe yi féetee ci place bu njëkk bi ba pare daal di tolloo ki poñ ñoom ñaar ñëpp tey ji ci ngoon la ñuy daal di football moo di Atlético Madrid diggante Real Madrid ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Elche yeneen i jongante 16h Granada ak Valence dañuy daal di tase 18h15 euh, Celta Vigo dina tase ak ñii dana am ay jongante tey ci ngoon méngoog seen 16 journée Liverpool bu Sadio Mané ci place bu njëkk bi moom dana fekk Newcastle ci dëkkam ci bu 20 Tottenham ak Fulham ñoom ci bu 18h jotee la di kon bokk tase yooyu yëpp nag euh, di donné euh, maanaam di dellu kon. bokk programme bi nga xamante ni euh, programme bu championnat bu Angleterre kon bokk euh, alaaji. du loolu wax boxing day wala nekkuñu ca. weesu nañ ko parce que ah, boxing day mooy jogante yi nga xamante ni gannaaw Noël. manam lande maanaam lendemain Noël lendemain 24 décembre. Ah. donc loolu mooy boxing day fu mu toll nii moom ay match de fin d'année lañuy lañuy lañuy kii daal. ñoom ci Angleterre. waaw ci Angleterre. jërëjëf Cheikh Tidiane. ok maa lay gërëm bu baax baax merci beaucoup. Universel Pousse Electronic Corp. ak Gambidi Beko. ak savon de Marseille créole. ñoo leen di may li ci yéenikaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku am looy laam-laamee ci coronavirus bi na sam xel dem ci ñi ci faatu wala ñi nekk ci dëj ndax seen i mbokk faatu ci coronavirus bi kaddu yu président national yooyee moo nekk ci xët mu njëkk soleil national journal bi nañu moom jiitu réew mi démb la ko wax ba muy daloo loko yu yeese ca service maladie infectieuse ci hôpital Fann ñii soofantal lii di wopp ji ak it ñiy day ci mesure barrière yi ñooñee la doon waxal ba xamal leen ne képp ku ci def na xam ne yaa ngi def loo xamante ne ji mën nga caa sànk baa nga sànk ca say mbokk nañu wax ja neexul bi président de république doon wax ci coronavirus bi gën di yokku ci réew mi raayul ay kàddoom nee képp koo xam ne xool nga ci ñi seen bakkan ci corona bi bi a ñoo mën a xeex mbas mi il faut que ku ci nekk ci ñoom da ciy dugal sa loxo ñu àndandoo xeex ko anki dina kay nañu président nee nañu xool ci ñi seen bakkan bu ñu bëggee xam ndax coronavirus bi lu am la am déet source mel ne naan ñu non seulement am la waaye ni mu mel ci réew mi fan yi dafa jéggi dayo juróomi nit yu faatu ci corona moom la ñu dégg démb ci réew mi juróom-ñaar fukki kaa ak juróom-ñett yu yees ak it fanweeri kaa garaaw ak juróom-ñaar la sinekaay bind na ñi nga xam ne dara fere geñeentewu leen ñoo ñooñu le président Macky Sall doon waxal démb tey l'observateur xëy nañu xamal ne guddi yi ñu toll réew mi ak ay njiitam ci xiini mi na guréy la ñu nekk mbas mi mi ngi fi bés bu yàlla sàkk kaa yi di gën di yokk ñiy faatu di gën di ba fi mu nekk ni ndax dañuy dellu ci mesures yu tar ñu fi tegoon ngir soowe bakkan yi wala ndax dañuy wéy ñu nekk nekkee ngir sowe koom ne dañu faa bëgg a dugal njàngaleem la sinekaay nee nañu jëwriñ gi ñu dénk éducation nationale di Mamadou Talla tëj na débat ba xam le ne ne jàngale ci l'école yi mbiri góor ak jigéen ak mbirum góor jigéen bokkul ci lu ñuy nësër du tay du ëllëg vox populi nañu moom dolli na ci neen lu aju ci suñu réew di Sénégal dafa am nu mu tëddee dañu am suñuy réalité tënku ci diine te it ci loolee ca la ñuy dox Sud Quotidien nañu xalaatub dugal njàngaleem saay-saay ci l'école yi ngir gone yi mën di ko jàng loolee bu dee amit du yomb ndax syndicat gi jabote jàngale jàngalekat yi ci réew mi bañ nañu ko ba tëdd ca naaj wa takk nañu ba dëgër taxaw ne loolee du fi amee mukk ministre éducation nationale mel ni kuy dalal xel ci xët mu njëkk Sud Quotidien nga fay wax ne loolee xalaatuñu ko nasuñu ko nësaruñu ko nañu ko gas suul suul pétrole ndax dana ko teree xeeñ en tout cas libération mi ngi ñuy xibaar ne coowal Petro-Tim doyen des suul na dossier ba démb ci la jël li ñu naan ci wàllu yoon ordonnance de non lieu enquête bi ñu ci doon def ñañ ca jot a déglu la ñu waxoon ko wax ginnaaw yi ak gorob Macky Sall bi di Mansour Faye la tribune nee nañu maire bu Ndar di Mansour Faye yéene ji mu amoon ngir jël avenue Charles de Gaulle ba ca Ndar soppi aw turam tuddee ko avenue président Macky Sall moom Macky mi ñu ko bëgg a tuddee ku dégg waxam ja démb service maladie infectieuse xam ne àndul ci xàll wa ñu ko bëgg a tuddee ca Ndar am na leneen it lool yéene kaay bii di Walf Quotidien nee nañu waxuñu ko ca dem ga président Macky Sall demoon démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ne nee nañu bi la ñu taxawoon doon ko Sarr l'observateur nee nañu moom lañ doon atté démb ci tribunal flagrant délit bu Ndakaaru ñeenti élèves yuy def classe terminale ñoo yore ay vidéo yo xamanténi ji kocc moko ko vidéo ya sen nas ndaw so xamné comptable la moko mom ci vidéo ya da ca saganu def ci jëf ju ñaaw gune yi jël vidéo ya wan ko ndaw si mudi comptable bi ba nopi jaara ci diko ko rompatub xaalis ndaw si bimu démé ba sonu ci santaas yene kay bi nee ci ca la yóbbu yëf ya ca yoon Universel Pousse Electronic Corp ak seen gamme bii di Beko ak seen savon de Marseille créole ñoo doon may li ci yéenekaay yi. ne pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg yi li ci yéenekaay yi fa la ñu yem ak yéen ci xibaar yi Mamadou Mohamed Ndiaye fare woon ci kàddu gi amoon mbégte mu ya àndoon ci ak yéen Abdoulaye Diop ne woon ci machine bi réalisation xibaar yi El Hadj Ndiogu lañ ci àndaloon régisseur d'antenne pod Pape Omar service digital Soxna Yacine Pouy.